salaam sama gars yi daal leen ak jàmm sama chaîne YouTube bi ci video bi nag dama leen bëggoon woon nan ngeen def ba redémarrer seen wifi bi wala ngeen réinitialiser ko pour ngeen def ko nag lu yomb la dañuy ñëw ñëw fii ñu def 192 point 168 point 1 point 1 voilà léegi soo leen ñëwee bu fii ba xaar ma déconnecté voilà soo leen ñëwee fii ngeen dugal seen mot de passe ak seen utilisateur bi voilà man dama ko enregistré directement voilà léegi soo leen ñëwee connecté ci nii da ngeen di ñëw ci réseau et diagnostic mooy bi nekk ci fin bi nii ngeen bës foofu noonu léegi soo leen bësee ngeen ñëw ci gestion système léegi gis nga fii da nga gis redémarrer gestion euh, gestion de demarage fii reboot gis nga fii ngay bës léegi soo ko bësee fii nag cinq minutes après rek nga gis sa YouTube day tàkk fayaat voilà léegi bu fekkee réinitialiser nag bi moom dama leen wax lu leer bu leen ko def amoo leen identifiant pour connexion parce que soo ko defee rek sa mot de passe yeeg yëpp day changé dootoo sax am accès internet il faut nga woowaat assistant orange nga wax leen sa carte d'identité yooyu pour ñu mën la ko joxaat te loolu day jël temps te tamit fekkee xarañoo ci affaire rek mën na bañ a dox voilà moo tax soo leen koy def jël leen redémarrer bi kese ngeen redémarrer seen fii fekkee dafa fayoon wala tamit fekkee dañoo tëj néeg bi ngeen bëgg koo redémarrer wala ngeen tay la jóg ngeen bëgg koo redémarrer seen kii mën ngeen utiliser seen téléphone pour ngeen def ko voilà waa kay sama gars yi ñu ngi yemale fii vidéo fekkee vidéo bi neex na leen ñaa ngi ñaan ngeen partage seen kay jaa ngeen jëf